loolu dafa daw. bu ko ko sa may pex. dafa dafa wax di box yaa ngi ñëw ci yëpp dafa El Hadj Demba Kourou. waaye ko sa pex gars yi jóg nañu. première course réservée au PDA plus de 300 distance 1650 mètres. gars yi dawalandoo nañu ñoom ñëpp dawalandoo nañu maa ngi seen ki nga xam ne moo di yëgul buur. maa ngi seen ki nga xam ne moo di waa Maman Soda Diaw mu ngi noonu moo génn en première position. deuxième position maa ngi seen ki nga xam ne moo di Kazaagu Bleu Blanc la écrit réewit. 3 ans yi jóg nañu damel daw dinaa dawel daal Demba waaye. yëgul buur ñëw na dawal nañu yëgul buur mu ñëw nga gis noonu nga xamante ni ndeysaan noonu la trois ans yi dawee fii ci Iba Drobé El Hadj Diop kon Diop borom gañaay borom gañaay noonu la yëgul buur dawee jërëjëf ko sa peex Mama Soda Diaw moo génn mi ngi noonu ci 200 mètres bi di ñëw bu ñeere ñu dellu maa ngi seen doomu guyaar maa ngi seen la numéro 11 ci ki nga xam ne buur Damel Daawur Demba Damel Daawur Demba dawal nañ ko xel yu bëri mu jege dawal nañ ko xel yu bëri mu jege si dawal nañu doomu Kiyaar dawal ki nga xam ne moo di yëgul buur dawal nañu yëgul buur waaye attention attention li nga li eh, dawal Damel Damel Demba dawal Daawur Demba da jege si na en deuxième position jege ki nga xam ne moo di Maman Sora Diaw waaye dawal doomu Kiyaar mu ñëw en troisième position gaa yaa ngi noonu ci ligi tàllal attention yow Damel Daawur Demba dawal nañu yëgul buur yëgul buur génn nag léegi. oh yëgul buur génn na yëgul buur génn na. deuxième position Damel Daoud Demba troisième position nekk doomu Guyaar quatrième position nekk ki nga xamante ne si moo di Mampenda waaye finalement ki nga xam ne moo génn moo di Yëgul Buur. waaye gis naa en troisième position Mampenda en quatrième position doomu Guyaar Yëgul Buur ñëw na Yëgul Buur a ngi noonu wax na Yëgul Buur façon caractère la Papa Sall soo ko boo ci teg day daw soo ko boo ci tegul day daw Yëgul Buur a ngi noonu di ñëw Papa Sall. Yëgul Buur ñëw na distance bi sax man doyatuma mais lii ba jàmm la yëgul buur. attention yëgul buur. attention yëgul waaye itam mel daawar dem mi ngi daw xil yu bëri di ñëw mi ngi daw xil yu di ñëw. première yëgul buur première yëgul buur deuxième Mampenda troisième Dame waaye ki nga xam ne moom moo moo jël première di yëgul buur mi ngi nii taxaw ndeysaan nga xam ne moo ko waroon di nga xam moo di Modou Dieye Modou moo ko war di rakk ci Mamar Dieye Mamar Dieye mi ko daan mooy war Medina nekk foofu ci écrit angal ka Mamar Dieye ngi noonu ndeysaan mag jaa ngi lii rafet waay lii rafet na lii c'est le maire lii la lii lii lii may yoon gis nga Mamar Dieye ci na fas jox ko rakkam tey rakkam ñëw rawti mu ñëw akulaat rakkam foon rakkam sama yaram waa ngi daw Babacar Mar lépp lu bëgg a dee sa émission jaabal lu bëgg gis sa émission jaabal quand c'est tout émission jaabal émission jaabal mooy leeral émission jaabal mooy wane émission jaabal mooy génn ku bëgg seetaan mbaa nga bëgg gis course mbaa nga bëgg gis leer da dem ci jaabal ar borom yëgul bi ngi ni góor a caam sama yaram dafa daw nag ci fas wi ndax góor a caam dégg na lu ne ci fas wi daj na lu ne ci fas wi ànd ak fas wi ba gaay yëpp ni ko bàyyil na fas wi bàyyi daw bàyyil fas wi mu gumbal taxlu indi ko 2 ans fas yu am ben premier mu yobbal ko ci préparer ko tay muy miir 3 ans goro ci am nuy naa wa sant yalla euh euh ma lay nuy di la ziar wax dëgg yàlla yow mom sama way nga parce que man nani ni sa première émission man nga ko defal ci course ko so pex way nak li nga yor soko yoru re da ngay togn parce que olof Ndiaye neena do doo jangul euh, jangil beure wa sant yalla fas mom moom dafa juddoo fi mo ro a yaa ngi dégg def li mu war a def yëpp Modou maa ngi ñëw def li mu war a def yëpp yaa ngi dégg tolof tolof yi bëri woon na si moom année deux mais ñun xam nañu fasu mën a daw la ñor parce que papa fasu papa ji groupe 1 la di baax chaque jour li ma rek Arama Sall mi nga xam te ne moo jurul fas wi Lamine Diop ak Sidi Ndaw ba Sidi Ndaw bi ma ko joxee fas wi bu ko neexoon mu jël fas wi changé tur bi mais wax fa dëgg yàlla si dara chaque jour mi ngi bàyyi fas wi sama tur te sama objectif instant bi nii barki alxuraan karim nekkatul 3 ans yi presque mais gis nañu jockey bi dañ koo aj tey Momar ak rakkam ñëw indi fas bi ñu doon coow nag ci groupe yi di wax naan joc ban joc lañ koy wutal tey indi. dañ ñu woon tey test la. parce que Momar jàmbaar di félicité El Hadj Ndiaye. Père Demba Momar Dieye ak euh, Mor Mafo ah di félicité seen euh, staff euh, koso fas kenn du ko yanu di daw moom fas day mën a daw rek daw. man xam naa ne fas bu baaxee dëgg dëgg dëgg bu ñuy ñëw si tur bi loo gis muy lunj moom lay doon tur bi daa xool bu la tudd waxuma la ak baadoola du du turu waaye man de sam fas yi bàyyi naa xel ci grand prix chef de l'état ah baax na yàlla baax na ñu ngi si nañ ko xaar ci open ah waaw lool lu ñu waxtaane lay doon rek eh. waaw canta ci bi nga sarima toor toor ñaala tanki piima doomu ndey weñ njaay ñu du gànt du tiim du saaga bari ne nguraan peey sa kër maam yaa defaraat jumaa yaa jëkkal xabru ya bokk ndey maxtaar ñu paru paral nguraan wuuf na njaboot gi jàmbaar joni keeni jàmbaar saa yu xarab mette ku sama xel day dal ah gars yi jug nañu gars yi jug nañu Cheikh Wade gars yi jug nañu jërëjëf ko samay peex gars yi jug nañu ñoom ñëpp jogandoo nañu mu nekk plus de ans ñu war a si distance su 1200 maa ngi seen ki nga xamante ne si mooy leen numéro 15 di misaan ñu tawal ko xel yu bëri waaye maa ngi seen ki nga xam ne mooy leen numéro 3 di balage mu ne en deuxième position gars yaa ngi noonu si tournal professeur Sakhir Thiam ndeysaan am nañu ki nga xam ne nga xamante ne moo di 200 mètres jëm ci 1000 mètres bi Kosa Mbaye Peex ki nga moo génn moo di Misaan deuxième position nekk nga ne moo di Balaas Kosa Misaan moo génn en deuxième position Balaas waaye Balaas génn na ànd na Misaan tukki Balaas da noonu ci kanam mi ngi noonu gis naa neex a neex a faal waaye Balaas ci kanam Balaas Balaas Pierre Sansa en troisième position waaye Misaan bañ na ba léegi Misaan bañ na Misaan dal na ci kaw Balaas Misaan dal na ci kaw Balaas. Misaan dal na ci kaw waaye ki nga xamante ni moo génn ba léegi gaa yaa ngi noonu doon benn fas ndeysaan diggante Misaan ak ki nga xamante ne moo di Babacar toogatul taxawatul bëri ndeysaan waaye deuxième position nekk nga xamante ne si moo di moo di Balage troisième position nekk nga xamante ne si moo di Misaan ñu ngi noonu di tourner tournant 200 mètres bu ñëwee dañuy téye ndeysaan waaye ki nga xamante ni moo génn moo di ki nga xam ne moo di moo di Xalima ex Balago attention Balage attention Balage Xalima les juges waaye Xalima jaar na ci aras bi balaas a ngi ak misaan balaas a ngi noonu balaas balaas balaas raw na première balaas deuxième xalima troisième dimanche bii ñu génn gis nañ misaan ni mu daawee ànd ak ans yi ñëw ci daanandoo ñoom execo ci box ci ci ci ci arrivé bi tey mu ñaar am troisième Babacar tey lan nga ma mën a wax ci loolu waaw bon course moom xam nga rek course ak ay réalité euh, xam nga gëj a si aussi parce que course yi booy xool day daw di taxaw donc daw di taxaw bi am na fas xam ne arrangé na am na ñu mu arrangé am na ñoo ci noppalu donc euh, misaan tey daw na am na troisième mais booy xool problème ba ci biir booy a xëccoo donc bi mu génnee dafa war a toog te ay biir doom toog xaar xaw a jaabal tuuti bay fas mu nooyi mais boo xoolee mayul fas mu nooyi benn yoon looloo tax fas bi ñu toogee taalal mi dafa mu arrivé loolu moo indi tey mu def li nga xamante ni mooy remise des box tey ñu ngi def li nga xamante ni mooy inauguration box yi yi nga xamante ni mooy salle Omar Ba Senior indi

ndax lii sponsor dañ ko séentoo lii mu jëf jëfal na course jëfal na amateur jëfal na propriétaire jëfal na mboolem ku yëg su suppique ndax lu rëy la dinaa facilité lu bari nag. départ yi dootul tardé. dina facilité lu bari. ñi nga xamante ni ñoo daan ñël di déplacé di jëm gauche droite dootu am benn fitna Omar daal ñu ngi koy sant ko ñaanal. Omar Ba ñu ngi koy sant di ko ñaanal box yaa ngi noonu Babacar Mar. mais tey jëluma kaddu ci casquette membre comité national dama jël casquette wëllëree ki nga xam ne moo ñu indil lii ñu ngeen jàkkaar lool muy box de départ box de départ ku ne xam na ni ci jamono bi toll ku ko amul ci course daanaka defuloo course ci lay jóge problème yu bare ci arrivé la daan jóge mu waral tax nag ñu def benn taxaw seetlu bu ndaw am xalaat bu yaatu ci ku nekkoon ak président Cheikh Tidiane Niang lenn dinañ ko muy ci jamono ni ci ayam donc wuti ay box ak wuti photo finish ma nga ca njéegal yàlla tey ñun ma jàpp ni suñu xel war na wat ci mom ñu ñaanal ko fa mu joggé fi mu joggé fa mu jëm gënal Umar personne physique la waxuma sax personne publique parce que batay amna différence ndax li mu def ndax ku ne xam na ni box yi li leen jënd du caaxaan box yi li leen indi du caaxaan mu tax nag ma war a taxaw itam mu yóbbante ma ko de façon solennelle ne ma boo demee nag ma gërëmal ñaari nit kenn ki mooy njaga saar mi nga xam ni moo fexe ba ma jot ci lii keneen ki mooy colonel mbañik mi nga xam ni ci ñun la bokk mu wax ma jéego yu am solo yu mbañik dox

tax ñu interpellé waat état je pense que tey jii waratuñu woon toog di wax waxu hippodrome national lii dañu waroon am hippodrome secondaire yuñ koy yóbbu hippodrome national waroon nañ ko weesu mais xëy na dara weesul encore une fois ñu ngi ñaax autorités yi bu dee kenn koo xam ne ci ñun la bokk di personne privée defal nañu lu mel nii am nañu droit exiger de l'État mu defal ñu salon bu ñu dugal lu mel nii fils Omar Ba aussi ñu ngi koy ñaanal gars yi jug nañu groupe 3 bi jug nañu groupe 3 bi jug nañu Cheikh Wade. jërëjëf Kosovoy war a daw si distance su 2200 mètres ñu ngi noonu di doog a am 200 mètres numéro 17 moo génn nekk ki nga xam ne moo di Couturier 3. ànd ak numéro 1 bi di ki nga xam di Mansour Fall gaa yaa ngi noonu ndeysaan ci tournal professeur Sakhir Thiam waaye ki nga xamante moo génn moo di ki nga xamante ne si moo di Cotonou 3 Kosa Mbaye Peex 2200 mètres lañ war a daw Cotonou 3 moo génn Cotonou 3 moo génn waaye gis naa fa su mel ne Elisio gis naa Cotonou moo génn ba léegi en position Mansour Fall en position Raxu bu écrit Gouyaar waaye Cotonou day Mansour Fall remplacé na Cotonou 3 waaye gis na en troisième position raxu jërëjëf Koso Mbaye Pekh ki nga xamante ne moo génnaat mooy Koutouna 3 génnaat na deuxième position nekk nga xam ne moo di Mansour Fall waaye maa ngi seen ki nga xamante ne moo di Elisio mu ngi ci biir bi di jaab rek waaye maa ngi seen ki nga xamante ne moo di commando mi ngi jaab rek di seen ki nga xamante ne aussi moo di raxu mu dañuy dellu ndax 2200 mètres la ñuy daw ko samay peex waaye ki nga xam ne moo génn ba léegi moo di Koutouna 3 moo génn ba léegi ñu ngi noonu a wër tournoi le 200 mètres bi assuré mu ngi noonu ci biir groupe bi benn tànk rungu não def nañu benn tànk ñëw nañ ñi ñu ngi romb tural 200 mètres bi ñu ngi doon di ñëw Coutounou 3 ba léegi mi ngi noonu bañ na waaye gis naa Mansour Fall ba léegi mi ngi não di ñëw ba léegi mi ngi não di ñëw. jërëjëf dawal dawal nañu sant yàlla dawal nañu maamu koor. jërëjëf Kosa Peex ki nga xam ne moo génn léegi moo di sant yàlla sant yàlla moo génn la numéro 10. sant yàlla sant yàlla moo génn la numéro 10. waaye ki nga xam ne moo di raxu dawal nañ ko xil yu bëri Kosa Mbay Peex mi ngi noonu di dem waaye ki nga xam ne moo jiital fas yi moo di Mbay Babacar Kosa Mbay Peex waaye ki nga xam ne ba léegi moo génn moo di sant yàlla deuxième position nekk ki nga xamante ne sii ki nga xam ne moo moo ne deuxième position sant yàlla moo génn dawal nañ Dame Lamar Ngoone Sabel dawal nañ Elisio dawal nañu Elicio attention Cotopex Elicio gaa yaa bi ñoom ñëpp a dawalandoo nañu wuti dépasse jot na Cotopex bu ñu ñëwee dañuy tekki seen naa Elicio mi ngi daw xel yu bëri ndeysaan Cotopex. ñu doon di ñëw tonton moo nekk ci kanam euh, tonton Basirou deuxième Mamou Kor troisième troisième Elicio. Karmar Adama Bawo ngi noonu taxaw Adama Bawo ngi noonu taxaw Adama Bawo ngi noonu taxaw waaye tonton Basirou noonu gis naa Elicio gis naa Elicio tonton Basirou ngi noonu attention élision waaye attention tonton Basirou tonton Basirou bañ na tonton Basirou bañ élision yi nga noonu di ñëw. laay laay la la attention Basirou maamu koor. oh laay laay la la tonton Basirou élision tonton Basirou élision tonton tonton Basirou élision tonton Basirou élision première tonton Basirou. troisième nekk si diggante ki nga xamante ne si moo la numéro 16 di ki nga xamante ne si moo 9 numéro 9 Lat Fati mi ngi taxaw ci code 7 numéro 10 Kasu ngi taxaw ci code 2 numéro 11 Daline ngi taxaw ci code 8 numéro Arafat mi ngi taxaw ci code 1 numéro 13 adjudant mi ngi ngi taxaw ci li xamante ne mooy code 14 Cheikh Wade tey naaru góor yaa ngi ni bu dem tamit la ngeen rek lay lay di daw waaye attention ndam li nanu bàyyi xel Zarak waaye nanu bàyyi xel El Capo nanu bàyyi xel Abdoulaye ñu umaan fii ci hôpital El Hadj Amakor Diop gaa ngi noonu ci biir box bi sama yaram waa ngi daw. ñaari góor yi li mu wane Sénégal Ndiaye gépp ko seetaan Babacar Mar le pro kenn du Mar seewaat gaa yaa ngi noonu ci box bi. gaa ngi noonu ci box bi gaa yaa ngi noonu peex waaye seen émission jaabal ku ne gis naa dimanche yi passé li fi xew ci groupe 1 bi. lépp seen émission jaabal génnee na ko ak Babacar Mar. seen émission jaabal génnee na ko Babacar Mar groupe doo yaa ngi noonu groupe doo bi gars yi jug nañu gars yi jug nañu lot doon mu ñëw. doon doon nañu Arafat mu ñëw waaye lot Fatim sikki ñu mën a gom lot Fatim ànd nag Arafat doon nañu dalin koor ci kanam nag pousse nañu dalin koor sax waat. jërëjëf Koso Bexa. dalin koor ànd ak Arafat ak Lat Fatim Anta Ndiaye ñu doon benn fas génn ci biti waaye dawal nañ ki nga xamante ni moo di Linguère Maguette mu génn xel yu na waaye Linguère Maguette génn na Linguère Maguette mi ngi ci kanam en deuxième position dalin koor en troisième position Arafat en quatrième position Lat Fatim Massiré Anta Linguère Maguette moo ñëw waa tey Lat Fatim dañ koo téye ci biir groupe bi looloo ma jaaxal ko sa peex parce que Lat Fatim da daan génn rek dagg premier bi dem yoonam waaye tey maa ngi koy seen en quatrième position mu ànd fàkk yaa xamante ne si moo di waaye maa ngi seen Linguère Maguette mu ne en première position deuxième position. El Capo teel na tëggal boppam ñëw à cinquième position waaye gis naa euh, gis naa gis li waaye waaye ba léegi euh, Linguère Maguette mi ngi ci kanam Linguère Maguette ni ngi leen jox na bari na tuuti dox na dox na dox na cinq lëngoor waaye Dalinkoor nekk na en deuxième position en troisième en 80 pour cent

ñëw en deuxième position en troisième position Arafat bu Sidi Ndaw bu écrit Maxtum na waaye gis naa El Capo ñëw mu ngi noonu ci biir groupe El Capo ngi noonu. dawal nañ ko El Capo dawal nañu Lat Fatim Anta Ndiaye non Lat Fatim Anta Ndiaye Lat Fatim Anta Ndiaye génn na waaye ki nga xam ne mooy Linguère Maguette bàyyiwu ko benn yoon dawal nañu El Capo dawal nañu ndam li dawal nañ ki nga xamante ne si moo di Amine Ouma gaa yëpp dawal ndoo nañ leen waaye ki nga xam moo génn moo di Lat Fatim Anta Ndiaye toog fa ki nga xamante ne moo di Linguère Maguette El Capo ñëw na waaye ba léegi daal Lat Fatim ñëw ci kanam Lat Fatim ñëw na El Capo ngi noonu El Capo génn na El Capo en deuxième position première position Namli, Namli ndam li professeur Tahir Thiam deuxième position nek ki nga Lat Fatima troisième position nek ki nga El Capo doomu honor impliqué mbokkum Baye Elisio. Lat Fatima dal na ci kawam Lat Fatima dal le ci Lat Fatima ci El Capo ngi doon di ñëw Lat Fatima dal na ci kawam Buraax nga ñëw Fatim, Lat Fatima Buraax Lat Fatima Buraax Lat Fatima Lat Fatima Lat Fatima Lat Fatima. premier Lat Fatima. deuxième preuve. Adama Baaw sibile na. Monsieur Anta Dia sibile na. Adama Baaw sibile na. Bref Seck jaay na. Adama Baaw sibile na. Adama Baaw sibile na. waaye ñu ngi ñaan bu baax Omar Ba Siñor. Babacar Ba Baye Cheikh a ngi noonu. Babacar Ba Baye Cheikh a ngi noonu. Babacar Ba Baye Cheikh a ngi noonu. ah buubu Baye Cheikh. Amar Pauzi Adama Bawa ngi noonu Adama Bawa ngi noonu sibile na Adama Bawa ngi noonu sibile na Lat Fatim Lat Fatim gis nga li Lat Fatim rawante gis nga li Lat Fatim rawante gis nga li Lat Fatim ndax dañ naan dàq fas bi mu xëy génn waaye tey dañ ko daaw ñu bëgg fas bi tey dañ ko tee loolu moo tax ne moom loolu moo wane li Lat Fatim indi na bi leen kii tey Abdoulaye tey gis nga li Lat Fatim rawante tey dañ ko téema intercalé tey mu ñu lu mu gisul woon lan la def dañ ko doon dàq mu dem si kanam tey ñu téye ko tey lan nga ma mën a dëkk ci boobu laa waroon. koso dama wax ni fas boo gis muy dem

dëgg dëgg li wax dëgg nga tey wax waaye gis nañ la demee noonu dañoo mën a rawante ñun ñun Lamp la ñun ñooy waa Lamp dañoo mën a rawante mais tey lu waral banque non système la comme Dalinkoor ñëw na li doon def nu ko def day jàpp 500 mètres raw parce que comme da doon daw 2200 mètres am troisième bu jaabee kon musiba am nga rawante calcul la ko xel la ak xalaat la Lat Faty da doon génn xam nga lu koy manque quoi tey nag yàlla def moo ëppul ma ñëw raw. lan mën a xaar nag Fatima. waaw grand bi seetaan wala ëppoon. incha allah waaw ñu raw ko si kàttan. lan nga wax écurie bi. waaw écurie di leen sant di leen gërëm rek ñun ñëpp benn lan déggoo nan. waaw parce que ñun xam nañ ne rawante bi fas yu ñu doon rawanteel mooy ndam li moom lañ joxan respect xam na ñun moom mooy fas woo xam ne mooy ñëw deuxième tour. moo tax ñu toog jël El Capour toog ci moom mu ànd ak moom euh, marqueel ñu ko mais fas yi nga xam ne moom moo daan génn te génnul tey di Lat Fatim dafa nekk ci progression ñun xam nañ ne heure bu toogee fi nga xam ne fi ndaanaan yi toog bu dawal jotee bu dawalee ñoo ñoo ñëpp kenn ko ci raw ndax fas gënuñu koo gudd dàquñu koo daw gënuñu koo tege ci yoon fas nag ñaar rek la nekk da tege ci yoon wala nga ñàkk a tege ci yoon boo tegee ci yoon daw boo wàccee raay bi doo daw noonu dong la demee waaye stratégie lañ rawanteeg a tëdd ñoo koy raw xol la yàllay fay ku yabu yéene nit yàlla tey jii bàyyil ba suba muy fay waxi tey boo ko defee tey fi nga ko jëfee tey ji ngay jëf tey ci la la koy fayee tey Omar Baaw xolam la ko yàlla di fay. xolam ko yàlla fay. course kenn mënu koo lekk bàyyi Omar Baaw. kenn mënu teew ci jëfi jëfam ci course hippique tax na lépp luñ fi teg ci course hippique di ko jéem a seppeek di ko jéem a wutal ay ay mbakar feggu dana ni ko fuuf. te ko lekkee day rees ndax da koy jëf ci biir course sant yàlla di julliwaat Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di sant ki nga xam ne moom moom moom fas yi di propriétaire du Omar Baaw li def képp ku mu xeexal dalay man parce que yàlla daa def ci moom loo xam ne def ko ci ñu bari xoolam rafet na laa biir na yaatal na te lépp lu mu yor ñu koy bokkal jàmm moo tax képp ku xëccoog moom bu ngeen tollee puissance rek mu dóor la nga daal. jëm goo nekk ba doog maa leen borom diggee segg jaayu na. Massiré Anta Ndiaye Lat fadi Anta Ndiaye mom ñim doon fekkulen fi xam nga mom mo gadu langa buri bi mo gadu langa buri bi bari na ñu koy contre bari na ñu nonu, noonu waaye sama maam nee na lay la lu forsani la xanaa xama Omar baw bu defee dootu surprise ku jaral Serigne muntaha teral sa waju teral teral sa yaay teral say mbokk soo teralee course kenn du di guleet. ko tey zoo Adama ban xeetu rawante la ko. waaw non xam nga lépp loo gis rek stratégie la. jëm day fas mën a daw. moo tax tey nag ñu changé stratégie bi tey damay indi beneen fas boo xam ne mooy dem ci kanam moom mu toog ràmb 1000 mètres man xam naa ne su ràmbee 1000 mètres fas bu ko bëgg a daw fii nga koy fekk ci tableau bi mais sant yàlla rek course moom dama lay amul ñaari secret moo ci nekk liggéey ak xam li nga extra mais stratégie nag moom soo xamee stratégie bi ngay teg rek moom dara du la jomb mais sant yàlla rek Umar lii mu def mais jomb ko Umar li mu def ci course li li feeñu moo li nëbbu moo li feeñ lii su ko defee turfis yëpp la ko defal amateurs yi la ko defal parce que tardement yi ñu doon am ci course yi loolu lañ bëgg tardement boobu nag jeex bi moo tax nag mu def lii dañ koy gërëm di ko sant rek di ko sant rek te nag xam ne lii ñëpp la ko defal rek borom fas yëpp la ko defal. bis bu rëy moom mooy Lamba Faar moom Lamba Faar bis mooy Lamba Faar waaw. waaye lan ngay wax Babacar Mar la pour. non Babacar il est le meilleur bokkul ak yow il est le meilleur il est le meilleur laa wax. tese yu ñu teg yu waa kër Lamba Faar teg tey dunoo indi Lat Fatim indi Dalinkoor Dalinkoor ne ku ne ne fasu kanam la. Dalinkoor bi mu demee ci kanam dunoo téye Lat Fatim ñu ko mu jàpp ñëw en deuxième quatrième position toog fa. buñ fi tooge ñu gis li daal fal jaat mille mille mille mètres bi daag see ba ci six moo euh, euh, buraax génn ko bi daag see ba ci deux cent mètres ba waa teg si teg si ci ñëw raw premier kon moo lay wax ne lamba far écrit stratégie la kon ñi ngi ñaan bu baax Omar Baaw waaye lii Omar Baaw def tey mënul woon niil lii Omar Baaw def tey faaw suñu borom fay ko waaye fas yu raw moom la tuddee Lat Fatim mu siri Anta Ndiaye ak Lat Fatim Anta Ndiaye yëpp nga ne bardemaana ba def Seck Ndiaye jàmbaar Adama Baaw ñi ngi koy félicité mooy borom borom boo ma ci duggee yàlla na yàlla def jàmm course Omar Baaw senior ci la bokk